non match bi bu yaakaar naa ne match bu métti la woon parce que léegi équipe bu ñu dee day métti on est on est champion d'Afrique xam nga champion d'Afrique match bi yëpp léegi final la équipe bi dafa ñëw tey nangul jeu taxaw seen ginnaaw bon ñëpp gis nañ ko ils ont défendu à. à 10 et que yombul woon mais boo xoolee tey match bi si ginnaaw bu ñu ko amoon y' a 2 ans y' a ans match boo xam la woon dañ koy match nii wala ñu euh, wala ñu perte ko. mais gagné nañ ko. donc dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax comme gagné match bi. coach coach. Euh, tey bi ñu gis ne tey am na jeunes yoo xam ne jot nañ leen lancé. noo gi jàngatee intégration jeunes non non intégration bi moom mu ngi mu bu baax parce que ay xale yoo xam ne yu nangu déglu la yu nangu jàng la. et dañoo ñëw rek bokk parce que lépp lu ñu lay wax rek dañ koy dañ koy déglu loolu aussi bonus la tey pour si pour si équipe yi bëri nee nañ force équipe nationale du Sénégal du terrain bi mais le collectif et l'ambiance qui règne dans le groupe. non loolu la gars yi xamul parce que si biir la parce que avant match bi ñu ngi koy wax nee nañ euh, ñu nekk donc famille diñ que boo xoolee rek environnement bi dafa xawoon dafa xawoon doy waar mais tey euh, moo ñu jox tey coupe d'Afrique ñu gagné match bi aussi di ko xamoon nañ ko parce que gisoon nañ carrément sa euh, vidéo yi parce que équipe boo xam ne carrément da lay bàyyi jeu lu gën a am important mooy tey ñu jéemoon dugal mais defuñu ko woon premier temps buñ teeloon moom match bi yaakaar naa ne dina yomb si ñun mais match bi ni muy gën a dem xam nga muy gën a métti si ñun parce que boo xoolee carrément si yomb woon parce que équipe boo xam ne nangul jeu dañuy sant yàlla comme que gagné nañ ko loolu moo gën a neex quoi. ñu ngi lay ñu ngi lay annoncé kata euh, Turquie. Turquie non instant moom xam naa fii une semaine rek wala dix jours dañ xam lu leen incha <laughs>